yëngatu ci wàllum aar ak ak yelleef doomu aadama ñoo tase fii ak député yi nga xamante ni ci kuréelu assemblée nationale la ñu nekk di wattu yenn yelleef yi ak ak ko nit ñi. loi la boo xam ne assemblée moo koy wote donc foofu lay mujje mieux vaut kon ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk préparer leen ñoom aussi ñu xool bu ñu amee seen ay xalaat ñu jox ñu ko ñu dolli ko ci avant projet bi ba mu mat. bu ko defee ñu yóbbu ko. c'est une coalition qui au Sénégal. loolu nag ñu jaarale ko ci waxtaan woo xamante ni. luñ ci jublu mooy aar leen. li ñuy def dañ koy def pour ëllëg ndax gouvernement aussi benn moment la ñuy régime day benn moment la day jàll yeneen régime ñëw yeneen régime ñëw xamuñu donc comme xamuloo nag dangay ngay teg loo xam ne nii ku fi mun di ñëw. nga fekk fi protection boo xam ne nii ah, ñi fi ñi fi jaaroon liggéey nañ ko ba nga xam ne aar nañ ñi nga xam ne ñooy aar ak ak yelleefu doomu aadama. waxtaanee nañ fii wàllu yoon ay loi yoo xamante ni bitim réew moo ko tënk constitution Sénégal jëlaat ko loolu yëpp nag député yi ni dinañ ko seet wante foog mu méngoo ak lu ñu dundee. Sénégal nag aussi du dëkk yëpp parce que dëkk bi am na loo xamante ne ni dafa am cëslaay goo xamante ni moo fi am tout le temps ñu ngi koy wax. muy ay wàllu religion yi wàllu tarixa yi wàllu euh, aada yeeg yooyu jàpp naa ne loolu aussi lu ñu war a jël encontre compte la. ci loolu ñoom ñu ni fokk rek ñu am kaaraange goo xamante ni dina leen mën a aar ba kenn du leen song ñoom ñu bëgg a kaaraange ndaxte ay menaces mën nañ ko jot saa yu nekk ak fu nekk.